école bu mu ngi juddu 2006 waaye ah, bu mu juddoo nag euh, madame Dramé moo nekk léegi euh, IEF de Sangalkam moo fi njëkk nekk principal moo ubbi classe yi ak quatre salles de classe léegi école bi 2014 dañ ko def mu nekk euh, lycée personnel bi ñu nekk juróom-benn fukk ak waaw juróom-benn fukk ak juróom maanaam 65 euh, loolu mu ngi répartir wu répartir wu entre professeurs yi ak euh, ak administration surveillant yi am nañ euh, fukk ak benn fukk ak benn surveillant ñaari surveillant généraux la ñeneen ñi ay surveillant simple lañ boo ci boolee ak internat censeur ak man élèves yi fi ne nii atum ren bi ñu ngi nekk junni ak juróom-ñaar téeméer ak juróomi élève moom la ñu am ren am na ñoo xam ne nag def nañ transfert dem ñooñu ñu ngi nekk fanweer ak juróom-benn mais am na ñoo xam ne ñu bëri ñoo xam ne dañoo ñëw parce que seen parents yi soit dañ leen affecté ñu ñëw dëkk si fii ou bien ñoom dañoo jënd kër ñëw dëkk si ñooñu ñu ngi toll ci euh, téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñeent. ñoo ñëw année bi fekk si ñi fi nekkoon. ñu ngi leen di teg ñaar partable table waaye nag ci ñàkk pexe yenn saa ñu def leen ñett par table ndax euh, xam nga ne euh, table yi moom euh, motewul lu tax mu kii même table yi bu mote woon tamit quelque fois aussi saal yenn saa yi day xat pour nga mën a dugal xale yi donc am na ñoo xam ne comme par exemple ñu nekk juróom-ñeent fukk par classe ngay obligé. mu am ay benn benn yoo xam ne dañuy nekk ñett par mais règle bi moom mooy ñu def ñaar par table. bon jafe-jafe bi mooy euh, bu may commencé mën nañ wax jumtukaay jumtukaay mën nañ commencé ci xale yi jumtukaay euh, ndax boo buggee wax ne da ngay former ay scientifique da ngay am li ñuy wax ne ay laboratoire lañ. laboratoire yooyu ci la xale bi di téye ay microscope ay tube à essai en tout cas matériel scientifique mais euh, prof dañuy obligé jël matériel scientifique di dem ci classe yi kon xale bi day xool rek euh, juróom-ñeent fukki xale yooyu yëpp mënuñoo assuré ne kenn ku ne dina laal matériel scientifique loolu benn jafe-jafe la beneen jafe-jafe bi mooy ñu am bibliothèque ñu mën a am fu ñuy liire day am tamit de des livres au programme ak œuvre au programme maanaam livre yoo xam ne dinañ ko mën a lire ak loo xam ne dinañ ci mën a def ay exercices parce que bibliothèque amu fi donc jafe-jafe boobu bu ñu amoon bibliothèque fonctionnelle dawit aussi dinañu arrangé. mooy professeurs yi boobu ba léegi amuñu salle des profs mm-hmm. waaw professeurs yi euh, benn salle lañu benn partenaire mayoon mooy Dia Plastique kooku tam tamit ñu ngi koy remercier au passage. ñu commencé ko depuis deux 2014 waaye ba léegi xadduñu ko donc ñun suñu objectif ren xam naa ne dinañ ko xadd waaye profs bu ñu leen mënoon a mettre à l'aise ba pare seen salle des profs mu am ay ordinateur mënoo imaginer nga wax nit ki ne da ngay jàngale de manière euh, virtuelle nga utiliser internet te salle bi amul ay ay jumtukaay maanaam ay ordinateur boo duggee salle des profs gis nga benn ordinateur nekk foofu donc loolu aussi euh, bu ñu paree ci xadd salle des profs euh, équipe salle des professeurs yi ba ñoom tamit ñu mën a liggéey maanaam liggéey liggéey bu mucc ayib loolu aussi mu ngi si salle de classe yi tam bu ñu mënee yokkal danañu arrangé parce que xam nga CM la CM bu yenu liise moom day métti donc ñu yokkalee ay salle de classe Euh, dinañu permettre du accueillir plus d'élèves résultat daaw yi day euh, sant nañ daal boo ko seetee par rapport ak euh, deux 2019 parce que deux 2019 boo xoolee BFEM ñu ngi amoon ñaar fukk fa téeméer yoo jël yaa ngi ci am ñaar fukk ak juróom ci jigéen bu dee góor ñi yaa ngi am ñaar fukk ak juróom benn bu ñu ñëwee 2020 bi ñu ngi am téeméer boo am am nga juróom-benn fukk ak juróom-ñett bu toftal juróom-ñeent fukk ak euh, benn ak euh, bu fekkee ne kii bi la euh, comment dirais-je garçon yi nga am ñeent fukk ak juróom-ñaar yu toftal juróom-ñeent fukk aussi ak benn ñun ba léegi Euh, ba ñu tijjee même avant ñu wax ne affaire bi mu ngi yokkuwaat même bi ñu wax ne mu ngi wàcc sax taxul ñu bàyyi dañuy exigeant dañuy wax ne fale bunt ba du mag du ndaw kuy dugg nga raxasu boo dugg see balaa nga dugg si da ngay dugg sa masque kenn ku ne am na masque même dans les salles de classe dañ leen topp ne leen sol leen masque léegi nag dañuy jàppale xale yi parce que xale yi gën nañoo bari pour nga fexe ba du ñu tàncaloo dafay jafe waaye ñu ngi jéem bés bu nekk rek ñu ngi leen di jege. ñu gisee ñu ñu jege jegeyantoo ñu wax ak ñoom pare aussi euh, euh, lundi bu nekk dañuy def levée de couleur fii chaque lundi bu ñu sonee huit cinq pour élèves yi yëpp njugu à partir de huit cinq ba huit heures dix dañu tu nekk ci drapeau bi leve couleur mais ci biir leve de couleur boobu comme ñëpp dañ fiy nekk prof yeeg élèves yeeg yëpp dañuy rappelé waat mesure barrière yooyu lycée bi ñu gën ko ñoŋal ngeen ko ñoŋal ñu xam ne liise bi benn lycée la pour ñaar fukki quartier ak benn sa ñaar fukki quartier yooyu ak benn am na yoo xam ne sax mën nga koo xaaj def ñaari quartier donc élèves yooyu yëpp fii la ñuy ñëw dañuy polariser donc 3 CM ak ñett primaire primaire yi ñooy def ci sixième 3 CM yi ñooy ramasser nag ñi nga xam ne yëpp ñoo def primaire ci yeneen gox goxaan yi ñu ñëw fii donc euh, loolu daal di doon ñaan autorités yi ñu jàpp lañu ci bu ñu amee tabax bugg nañ ko bu ñu force personnel tamit bugg nañ ko surtout que personnel scientifique surtout bugg nañ ko professeur ay lycée parce que professeur euh, CM moom am na mais xam nga comme dañ ko yóbbu liise il faut nga am professeur lycée ndax aussi terminal ñu am résultat yu mucc ayib donc loolu buggoon nañ ko donc wax naa la ak euh, bibliothèque aussi pour faire xale yi fu ñuy liire ak yooyu en tout cas ñu ñoŋalal ñu lycée bi daal buñ ko andi woon dinañ leen gën a gërëm lu ëpp lañ leen gërëm